sunu benn mbokkum taalibe moo koy defar wallaay muy waa Sénico Abdoulaye Dia Sénico Serigne Abdoulaye Dia mu Sénico moo koy defar wallaay may ñaan nag sénégalais ak murid ñu koy consommé muy amira macaroni bii mooy vermicelle bi kon nag donc maa ngi ñaan ñëpp ñu ñu koy consommé te xam ne moom lu mu ci am ci daara yi la koy delloo dëgg la si Abdoulaye Dia maa ngi sàkk ñëpp di ko jàppale ñëpp di ko jën di ko consommé